te bu doon lu waay waxal nit rek ñu génne ko kon li ma lay génneel dina bari ndax yàgg nga ma wax ay wax dama toog ci kon su ma la waxee samay wax waroo koo yóbbu jéeg bi bañ dàq ci baam bi bañu dàq ci baam bi loolu rafetul bi ñu dàqee baam ba tey maa ngi kuul sama saayit jàpp sama ma sa ñaam di liggéey sama liggéey kenn ma dara bi ñu dàqee baam ba tey sénégalais sax xamul tax ñu dàq baam maa ngi kuul sama kuul te man maa jël samay wax yoo jox la ko nga jël samay wax lem ba mu ron yóbbul ko jéeg bi jéeg bi muñ ba muñatul chaque jour nga def place su jéeg bi duul ko ay duul yaa ruy laaxi nëbb kooki yow yaa ruy laaxi nëbb kooki jël wax jépp daal di ko yóbbul jéeg bi mi ngi ko yóbbulee jéeg bi jéeg bi jéeg bi dama fullaak fayda rek la lu ko waaj di wax rek na mel ni di ndax danaan diw ko wax jéeg bi ko laajee lan moo waral nga dàq baam la diw diw moo ma wax lii diw moo lii ne Zal Mbaye moo ma ko wax loolu lay wax moom xale moom jéeg bi moom dawul loolu danaan la diw a ko wax lu koy waay di wax rek na mel ni mi di danaan la diw moo ma ko wax danaan la diw moo ma ne diwul moo ne ma lii ak lii ak lii yaa dem ba ci jéeg bi yóbbu ko samay wax man mi maa la wax wax ji nga jëli wax ji yóbbu ko bu doon lu waay wax di da nga yóbbu ko kon li ma wax yëpp bu ma ko yóbbu woon dëkk bi yëngu waaye man dama am bàmmilu biir loo ma wax dama koy toogaale kon waruma laa samay wax nga jël ko yóbbu ko géej am na loo xam dafa ñaaw sa naw la du la wax ay waxam nga jël wax ja leen ko bam ron yóbbu ko loolu dafa ñaaw loolu dafa ñaaw ci koo àndal ñaataatu yàlla ñaataat ngeen ànd yéen ñaar ñaataat keroog bi la jéeg bi di wo main libre la ma def bambee ngi tok mu def la main libre bambee ngi tok mi mo defo dara bambee ngi tok kon loolu bamé ma jàpp Famara su ndamb yow nga ne danga maa bàyyi danga ma dag san ah xamna ya ma daan lekkal wala yaa ma daan nanal wala yaa ma daan jox mi jërë may sol nga fekk ma ci xew romb ma nii man kenn du gënuma kenn gënu ma kenn ba nga fekke xew romb ma nii bañ lay way ma tok tek la samay tank jàpp sama ko njàmb danga ma fekk taxaw nuyu woon ñi nga àndal nuyu ma biñ lay way ma toog teg la samay tànk man du ma kii démb Zale Mbaye ku ne mu jàkkaarloog yow ku ne mu xuloog yow te du ngeen comprendre TikTok bi du ngeen xam au fond du cœur lii xew du xewee ci TikTok bi lii xew du xewee ci TikTok bi dañ lay def ay yëpp yoo xam ne te nga jaar ak ñoom foo xam ne barke Allah ji fàllu àdduna dafa métti nga jaar ak ñoom foo xam ne dafa nga jaar ak ñoom ñan lay xeexee sax jaaruñu ak ñoom foofu noonu ba mu méttee ba mu méttee kooku gisoo ko man mii nga keroog man la tubarkaa a voyage sa voyage taxaw maay ci ñaari million jox la na la demal wuy ji voyage boo ñëwee ma jaay nga dem voyage ñëw ma jaay leen sa bagage ba jeex xale yi naa ma Zale Mbaye lu muy ngaf ngaf ci bagage yu damaa mën sama nit mën sama nit Zale Mbaye lan lay ngaf ngaf ci bagage yu jàmbur yi ma ne mën sama nit daw ma Dubaay daw ma Siin waaye ku dem boo ma woowee ma laay fal ma laay fal jaay leen sa bagage yëpp ko yóbbul na la eh ki ko yóbbul ne eh diw mii moo toog sama place bii moo ma wax lii moo ma wax lii moo la ca des ki ko yóbbul moo ko wax. jeeg bi ko yóbbul wax moo ne eh diw mii amul laam-laam amul dara diw mii moo ma ko wax diw mii moo ma wax wax diw mii moo ma wax wax ji loo wax sa place bi bu ko bambi xam ndax bu ko bambi xamee Zal Mbaye da koy yëg loolu dafa loolu dafa ñaaw. Sall baal leen nag Kébé. loolu dafa ñaaw on am na couleur am na non man dama am lu ma naqari. ma lu ma naqari boobu ba léegi génn ma détaillé ma kaaw ma màggal Touba ba tey laa jëb coow li. màggal Touba ba tey laa yëg coow li. ma boole lu ma neex ak lu ma naqari man ku ne xam na ne gaynde laa damaa déggoon jabaram ma ne ko maa la takki woon indi la bugguma ñu dégg ñu te sama nawle nga sama xarit nga. waaye sa jëkkër def na ma lu ma naqadi ndax dama ko wax samay wax mu jël wax ji yóbbu ko ba tey liggéeyu jàmbur bi ñu dàqee bam bi foofu la coow li jóge sénégalais yi xamuñ tax ñu dàq bam bi maam lu ma naqadi boo lu ma neex ak lu ma naqadi toog sama kër toog sama kër jàpp sama morso ñàmbur 5 dara 12500 ba tey musuma toog ak mbindeef wax ko wax ji ni mel musuma toog ak mbindeef wax ko wax ju ni dañuy dajeeg man sax ne ma ana diw ma leen mu ngi fii mu ngi si jàmm dama mën sama nit ma fàtte keroog ba ngay dem siin waaw ba ma fàtte leen fàtte xadu donte keroog dama nga euh, ba nga jaaxle yow am soxla ñaari million kenn fajalu ko man géwél bii gàtt bii man mi maa faj allo allo waaw wax ji jotee dafa ne diw yaa ma ko wax dafa ne diw moo ma wax wax ji maire forox du ma bàyyi ma fen keroog bi ma maire forox woowee Sall Mbaye ma ne ko ah mu ne ma sa xarit bi moytul sa xarit bi tubaarkàlla dama koo laaj lan moo tax nga nga nga dàq baam bi mu ne ko jéeg mu jéeg bi tam nga dàq baam bi mu ne ko diw moo ma wax lii ak lii moo ma ko nettali te jéeg bi moom dawul jéeg bi lu ko waay di wax rek na mel ni mi dina la naan yaa ma ko wax danaan la yow mii yaa ma ko wax yow yaa ma wax lii te koro bi la jéeg bi di woo téesante baam bee ngi toog mais libre la la def Mimo séeri Mimo Mimo yow yaa ko wax loolu rafetul dafa ñaaw sama diggante ak yow su ma la waxee samay wax waroo koo yóbbul keneen waroo koo yóbbul sama soppi sax waroo koo yóbbul keneen 5 draps 12500 fii ci HLM boo bëggee ma jaay la boo bëggee ma jaay la couleur rek balaa am na 5 draps 12500 loolu dafa ñaaw te mu méttee maa yëkkati sama ñaari million ne la demal nga boo ñëwee ma jënd boo jë boo jëndee bagage boo ñëwee ma jaay la ko keroog maa it maa ànd ak yow ba ca banque ba ma retiré ñaari million ñaari brique man mbayul man géwél bi demul siin daw ma Dubaay maa it ñaari million jox la la dama te boobu dañ la war a teggi ki la war a natt fausse la ma yëkkati ñaari million jox boo ñëwee ma jaay la sa bagage nga ñëw ma jaay la sa bagage ñu banil sama ñaari compte yëpp ak code de toi ma boole lu ma xanaa ku mënul mën na lool waaye ku mënul nitam dina def loolu noonu ku munul ni tam dina def loolu noonu dina yëkkati ñaari million abal ko naw leen na ko demal nga jënd bagage ñëw kon xanaa man ma ay tamit nag nañ waxante dëgg nag ñu def ma métti ba ci kanamu yàlla kenn moo ma ko waroon mu des yow daf ma métti ba ci kanamu yàlla daf ma métti ma wax la samay wax nga yóbbu ko ki ko yóbbul ne la eh ki ko yóbbul ne eh diw mii moo toog sama place bii moo ma wax lii moo ma wax lii moo ma wax la ca des ki ko yóbbul moo ko wax jeeg bi ko yóbbul wax moo ne eh diw mii amul laam-laam yi eh, amul dara diw mii moo ma ko wax diw mii bu ko yow man boo defee sa coalition man loolu safuma li tax ñu baax li tax ñu dàq Bambi xale yi xamuñu ko Bambi Bakayoko boo gisee ñu dàq xale yi xamuñu ko de waaye man géwél bi xam naa tax ñu dàq Bambi te li dàq li tax ñu dàq Bambi yow mi yaa duul duuli dem duul ko jeeg bi jeeg bi euh, euh, sëkkandu ko ci dem dàq Bambi yow yaa tax ñu li tax ñu dàq baat bi nga bëgg nit ñi xam dañu koy xam ndax yaa samay wax yóbbu ko jeeg bi yaa jël samay wax dem yóbbu ko jeeg bi jeeg bi tubarkàlla képp ku jeeg bi ma sa woo rek nee na la yow mii diw diw mu ne laa mu ne la yow yaa wax yow yaa ñëw nettali ma lii ci baam loolu war nga kuurus sa naw war na laa wax ay wax sa naw la war na laa wax sa ay wax nga jël wax ji lem ko ba mu ron yóbbul ko ci keneen jël ko ba ko keneen loolu dafa ñaaw Tanor la warul am ay waxam te bu doon lu waay waxal nit rek ñu génne ko kon li ma lay génneel dina bari ndax yàgg nga ma ay wax dama toog ci kon su ma samay wax waroo koo yóbbu jéeg bi bañ dàq ci baam bi ci baam bi loolu rafetul bi ñu dàqee bi ba tey maa ngi kuul sama saay jàpp sama ma sa ñaam di liggéey sama liggéey kenn xamaluma dara bi ñu dàqee baam bi ba tey sénégalais sax xamul tax ñu dàq baam bi maa ngi kuul sama kuul te man maa jël samay wax yow jox la ko nga jël samay wax lem ba mu ron yóbbul ko jéeg bi jeg bi muñ ba muñatul chaque jour nga dem place jéeg bi duul ko ay jul yaa ruy laaxi nëbb ko gi yow yaa ruy laaxi nëbb koo gi jël wax ji yëpp daal di ko yóbbul jéeg bi mi ko yóbbulee jéeg bi jéeg bi jéeg bi de moom fullaak fayda rek laam lu ko waay di wax rek na mel ni mi di ndax danaan diwoo ma ko wax te jeg bi boo ko laajee lan moo waral nga dàq bam bi danaan la diw diw moo ma wax lii diw moo ma wax lii ne Zal Mbaye moo ma ko wax loolu lay wax moom xale moom jéeg bi moom dawul loolu danaan la diw ma ko wax lu koy waay di wax rek na mel ni mi di danaan la diw moo ma ko wax danaan la diw moo ma ne diwul moo ne ma lii ak lii ak lii yaa dem ba ci jéeg bi yóbbu ko samay wax man mi maa la wax wax ji nga jëli wax ji yóbbu ko bu doon lu waay wax ni da nga yóbbu ko kon li ma wax yëpp bu ma ko yóbbu woon dëkk bi yëngu waaye man dama am bàmmilu biir loo ma ku ma sonal place am ci réew mi ñu ne amul man ku ma bokkal ma dimbal la ku ma àndal gar ci man bañ naa ko ma ànd ak yow tubarka dama ne boo boo fayee taxi aller damay fay retour ndax damay bañ eh Zal Mbaye lii wala lii tii wala si loolu laay bañ ndax man ku ma ko def ku ma wax ma delloo la barka laa ji fàllu ku ma ko wax ku ne ma delloo la ku ba mu neex bari doole danga ngeen a war a bàyyi ay wax yu ñaaw ay détails ngeen war a bàyyi ay détails ngeen war a bàyyi am na kasa la das kay ki bul xool tey boo fàttali démb rek ma fàttali la ba ma la yebal ñaari millions yi du da nga maa woo ci guerre rek na nga ci dem man daw lool de. man daw ma ci guerre dara man jo man ragalu ma jaag maa doog téeméeri nit xamaluma rus. Zal Mbaye yaa tooñ loolu dama koy rus Zal mbay yaa jote kii yow yaa ko tooñ.